fa nafsu bakkan ba in xadat ndéem bëgg naa jalgati xale ko ci sa kaw fa jox kon nga xiif talin kon mu nooy lakkañe la bila adan ci lu dul lor wa wajaayin aku metit bakkan bi moom nee na ngànnaay lim koy daane mooy rek xiif ndax moom ngànnaay lam yor te bu la ko songee boo yeexee rek mu daaneel la mooy regg regg moom boo xasee def rek bakkan bi am na ngànnaay ji sa kaw loo xam ne bu la ko xeexee rek boo tuut gaañ la kon na yow boo xiifee rek dal nga koy ëpp doole kon sa bakkan bu la bëggee man fexeel ba xiif rek xiif bu digg doomu boo ko defee bakkan bi daal di nooy te du la lor du la gaañ laa tudd xil bul dugal ak taxaama ñam wa fi batanika ci sa biir min xëyri majaaxatin ci lul xiif tasiha kon nga wér lam amin fenuma nee na boo bëggee wér da ngay fexe ba bala ngaa lekk rek xiif te loolee nga lekk bala nga caa tegaat dara dara mu wóor la ne rees na bu wér a wér a wér ba nga xiif moom daal li fekk xiifoo rek bul mos dara bul lekk booy lekk itam bala ngaa regg rek bàyyi loolu boo ko defee nee na faaw nga wér moom lu bokkut ak dimbali gim lay dimbale ci wàllu doxub àllaaxira itam da nga ci am wér gu yaram mooy wér gu yaram nga ci amee boo ko defee noonu bala ngaa lekk rek xiif te booy lekk bala ngaa regg rek bàyyi waaw loolu moom boo ko defee da nga am wéru yaram lu bokkut ak may gam lay may wérug diine wala tu xaalit bul jaxasonteeg saaxibal xisiyaani borom mooy ga taw xan ci coobarew wala tamit te bul jeng li si tuxyaanin jëm ci borom ak mbewte waaw nee na adduna moom ngànnaay li nga xam ne bu la ko xeexee daal lay bëgg gañe mooy nga baril ab jaxasoo bu amul njariñ di jaxasoog waa adduna jaxasoo boo xam ne amul njariñ te mënaan naa ñàkk bu jaxasoo bu mel noonu moom mooy ngànnaay la adduna gaaw a xeexe léegi nag boo dee beru di néewal sab jaxasoo rek kon daal ngay gañe adduna moo tax ne bul jaxasoog boromuk mooy bul jëm ci borom dool jërëgul yàlla borom dool jërëgul yàlla moom ànd ak moom fii ci adduna day nuru teraanga ndax ni mu noppalee waaye day soppi ko toroxte ci àllaaxira moo tax ama isa xaalata ndaal ndeem jaxasonte ngaak kër xan ci ak forcé xëyra man kudul koo xam ne xat kaana nekk na xaabiran di aji jaamu nga jaxasoog moom nag li aqdaari zamani ngir dogali jamono falaasim kon na nga taqoo al imaan imaan wal islaam ak islaam wa xayra ihsaan ak ngën ju rafetal walantulaama te kon defu la yedd nee na bu fekkee yàlla moo dogal nag mën laa ñàkk jaxasoog gaa yi nga xam ne ñu day waar lañu nekkuñu ñu sàmm seen diine waaye nag dogal baa ñëw mën laa ñàkk jaxasoog ñoom da ngay fexe ba ñu bañ laa yóbbaale ci dara yow foo toll rek na nga taqoo imaan islaam ihsaan buñ la yóbbaale ci dara dara lu wuteeg loolu boo ko defee rek kon du wàññi dara waxaalit na nga jaxasoog almumina aji gëm ja bi taxaawu ni ci dimbalante amma xalal aza ndaal ci lor moom falaatu xaawin bul ci dimbalante nee na booy ànd ku gëm yàlla kat na nga dimbalanteeg moom ci xalal birri wa taqwa wa taxaawanu xalal birri wa taqwa ku gëm yàlla ki del ànd ak moom dimbalanteeg moom ci lépp lu baax aku ragal yàlla waaye wala taxaawanu xalal ismi wal xudwaan na nga moy na nga moytoo dimbalante kenn ci luy indi bàkkaar mbaa tooñ mbaa lu koy noro waxaalit na nga jaxasoog almuslima jullit ba wala muhsina ak aji rafetal ja fi xibaadati la si ci jaamu yàlla mi nga xam ne xabaa maye na bil kanafi ca kaaraange la nee na na ngay fexe bay jaxasoog koo xam ne jullit la dëgg-dëgg ku rafetum jullit bu ko defee ngeen dimbalante ci jaamu yàlla rek xam ne kenn ku nekk day soññ sa moroom ngeen di dimbalante rek ci jaamu yàlla waxay suma xaalata foo xam ne jaxasoo nga ak man koo xam ne araada bëgg na xayban sikk falaataxa bul may la ñeel ko almuraad na mel nga nee na saa yoo jaxasoo koo xam ne daa bëgg a jàdduloo yoon nga xam ne lii mu la jëmee moom baaxut bul ko may mukk bunt bu mu lay jëmee ci loolee déedéet dala di fexe ba tàggoog moom dika mën nga ko soo ko mën nga yow nga fexe ba taxoog imaan islaam ihsaan mu bañ laa yóbbaale mukk mukk wa faariq na nga teqalikoo alxaflata càggante ga xay suma xifta foo fi ragale allah ina kañu rëbbu fa innahoo naka moom yekku fuufa dana ko fekk almuinu aji dimbalee ja seytaane moom ngànnaay li mu lay xeexe gaaw laa song te ëpp la doole mooy sàggan ci tudd yàlla ak fàttaliku ko saa yoo sàgganee ci fàttaliku yàlla tudd ko rek xamal ne may nga seytaane doole ak pexe ci sa kaw léegi nag boo bari lee tudd yàlla ak fàttaliku ko nag xamal ne kon dammate nga ngànnaayal seytaane kem na nga bari lee tudd yàlla ak fàttaliku ko rek noonu la noonu ngay muccee ci seytaane kem na nga ci sàggane itam la seytaane amee doole ci yow a tax mu ne saa yoo regalee seytaane na nga tàggoog càggante rek bu ko defee yàlla fegal la ko ku nekkal zajtihaadi di boroom ak fardu zakiran te aji tudd lillahi ñel yàlla tukk fa kon def na la fegal ashayatina saytaane ya wa kullallahin ak jëpp aji fo ngeen farlu ci fàttaliku yàlla ak tudd ko di ko bàyyi xel foo toll wala boo ko defee rek yàlla musal la ci saytaaneeg képp kuy dox di fo wasrif walbatil xawaaka sa bànneex lirida mawlaaka jëm ci ngërëmal sa boroom washkuruhu te nga sant ko lil fadl ngir ngëneel la àll si la nga xam ne awlaaka jox na la ko bànneex moom noonu la boo xam ne lim lay gaaw a songi te ëpp la doole mooy bari la wax wax ju amul tuyaaba saa yoo xasee bari la ay wax yu amul tuyaaba rek sa bànneex bu la songee dal lay bëgg a gañe soo saxee ci téye saw làmmeñ ci jëpp wax ju amul tuyaaba rek li jëpp moom sa bànneex du la mën a yóbbaale moo tax mu naa da ngay jéem di wëlbati sa bànneex jëme ko ci ngërëmul yàlla te moytoo jëm ci dala bakkan bi wooye mu neex ko rek noonu te amul njariñ da ngay sant yàlla mi nga xam ne kat baaxi na la fàttiwu la ndax awlaaka méngale na la mooy jox na la xaq lan am xel wa jawaariha ak ay cër bilaa xaltalin ci lu ak wàcc xaltalu mooy wàcc la bañ laa dimbale loolu yàlla defu ko ah kay dimbale na la faq balan na nga nangu fadlahoo ngëneelam la bi sukkurin ci cant nee na yàlla kat dimbali na la ndax jox na la xel moo xam ne moo lay wan ne la lee sa njariñ la lee moytu ko sa lor la xel moom di cëpp na lay wan naa la lee moo baax ci yow lee moo baaxul ci yow te yàlla may na la ay cër yoo xam ne itam mën nga ci soppaxndiku di ca fàggu lu baax di moytu safaan ba kon nag yàlla wëccu la na nga ko sant ci nga ne loolu mu la jox wal taqul na ngay wax alxayra aw yiw was mutte nga noppi xan si waax walis lu dul moom yasil kon mujj maa la nga xam ne tax waaxu da nga ko sopp ridaahu ci ngërëmam moom yàlla daa wax ne boo fexee ba di wax lu baax rek mbaa nga téye saw làmmeñ kon day mujj ngërëmul yàlla rek mooy sedd sa xol maanaam boo bëggee ngërëmul yàlla rek mooy sedd sa xol leneen du jëm ci sa xol sa xol du jëm ci leneen lu may ngërëmul yàlla fexeel ba téye saw làmmeñ ci lépp lu aw yiw nga xam ne aw yiw rek ngay wax mbaa nga noppi loolu boo ko saqoo daal moom day mujj rek la yàlla gërëm rek moom ngay sopp ci ngay jëm doo bëgg leneen lu may loola waxay suma kullimta saa yoo xam ne bëgg yëf na laa waxloo bil fuduli ci caaxaan famille na nga jeng ilal afdali jëm ci la gën lal mafduli du caagéen la ñu gën ina buñ la bëggee wax looy caaxaan na nga daal di gaaw dellu ci tudd yàlla ak lépp lu mel ne tudd yàlla di la may tuyaaba te moytoo jëm ci caaxaan yooyu ñu la bëgg a jëmale al baabu lii mooy bunt bi ak taalisu bi aji ñetteel fii manfaatil xabibi ci njëriñal soppe ba al amini kadi kuñ wóolu wa fi madaratil aduwi ak ci lori noon ba allësi ba nga xam ne yaminu dana fen buntu ñetteel bi moom da ci wax yonante bi ni ko yàlla defee muy buntu njariñ boo xam ne njariñal képp ku gëm la ak saytaane moom ni mu safaanoo yonante bi yàlla def ko muy noonu képp ku jëm ci yàlla di lori képp ku jëm ci yàlla noonu la koy awantee nag ci bunt bi bunt bi jeex tudd fee wax fee njariñal yonante bi wax fee lori iblis wa min manaafi rasulillahi bokk na ci njariñ yonante yàlla ba alayhi yàlla doole nekk ci moom sarmadan faawu salaamullahi jàmm yàlla ba'da salaatihi gannaaw dooli teralam intifaahuhoo jariñoom nga maxa qasdin tifaahi xayrihi ànd ak jublu jariñu kudul moom waxamaxa te mu not noon ya yonante bi nee na bokk na ci ay njariñam mooy yàlla da ko jariñ mu jariñu te mu fas yéene itam ñëpp jariñu xam ne kon moom yàlla jariñ na ko ba mu jariñu te itam daa yéene ñëpp ñëpp njariñ muy safaanub seytaan seytaane moom yàlla rëbb ko alak ko tam fas yéene itam par ñëpp rek am rëbbum yàlla ak merum yàlla ba faawu faawu mel ni moom moo tax mu ne wa min madarati adduwillahi bokk na ci lori noonu yàlla ba alayhi yàlla na dollee nekk ci moom laanatun ak rëbbu meneen illaahi gu tukkee ci buur bi idd baaruhoo dëddoom ga anil jinaani walis àjjana ye sarmadana faaw linaari yi jëm ci sawaraam wa ëllëti wa nga xam ne tudd yi mu dana saxal alkamada njàqare la bokk na ci lori iblis moom yàlla na ko yàlla dollee rëbbu dafa woon gannaaw àjjana ndax du ca dem mukk mukk ba noppi tam fas yéene nag ñëpp mel ni moom rek dem ci kërug safaan ba ànd ak moom kon moom yàlla xañ na ko àjjana faaw faaw bu jëm sawara ba noppi nag mu fas yéene ñëpp ànd ak moom dem ja kon loolu lorom la wa min manaafi'i nabi bokk na ci njariñ yonante ba almuntaxa ba di buñu tànn salla yàlla na dool tedd nga xale ci moom rabbu fa boroomam kamantaxaa naka mu ko tànne nasihatun ab laabiire min hu tukkee ci moom tawajjahat boobu jublu na li man jëm ci képp koo xam ne aamana gëm na bi rabbihi ci boroomam fii kulli samanin ci bépp jamono nee na bokk na ci njariñ yonante bi mooy moom day laabiire na képp ku gëm yàlla wax la na ngay def ba maneeg sa boroom déggoog sa boroom sa boroom gërëm la muy safaanu iblis iblis moom dafa noonu képp ku jëm ci yàlla te jéem rek képp ku jëm ci yàlla mu dëddali laak sa boroom nga ànd ak moom rek jëm ci safaan ba moom lay bëgg a wax mooy wamin madarati xaddu wina bokk na ci lori sunu noon ba allah yi ni ka di kuñu rëbbu alayhi yàlla na doole nekk ci moom laanat ak rëbbu minal baax yu tukkee ci yàlla mi aji des al moo yi ni ka aji dimbalee xadaawatun ak noonoo min hu tukkee ci moom tawajjahat goo xam dëgmal na ilaa man jëm ci képp koo xam ne yàttulu bu day sàkku allah yàlla allasi yàlla mi nga xam ne yont yi dana joxe al ilaa xéewal wa inna hoota naka moom yaskun dana dal li xëy di di saxaadati jëm ci kudul boroomu taxe daa ihaadati mbir mi boroomu baamu lil ixwaa i ñal beewloo ga nde wa kullu di saxaadatin képp ki boroomu taxe moom fallaahu yàlla yaax mi dana ko aar xan walis ko maxamaa ànd ak la nga xam ne wallaahu méngoonte naag moom ena seytaan yàlla na ko yàlla doole rëbb moom daal day noonu képp ki wut yàlla képp ki wut yàlla rek yow lay jàppe ab noon parce que laa beewloo nag ba doo texe mukk mukk mukk rek te luñ ci man rek dana ko def mu ne waaye nag ku yàlla narul ci moom texe rek moom la seytaan yi mënal dara waaye képp ku yàlla nar ci moom texe moom yàllaa koy aar ba iblis du ko mënal dara moo ki gaayam wa min manaafi nabi bokk na ci njariñ yonante bi al mujtaba ba di biñu tànn alih yàlla na doole nekk ci moom taslima karimin yaari musali aji tedd iji taba ju tànn na ko ibbu xaa ohoo desalam nga waraa ohoo ci gannaawam maal maaloo xam ne kaf fa fekk na al azalor ja li xëy di diini yi jëm ci dulu diineem ja fan kaffa te mu fegu bokk na ci njariñ yonante bi te yàlla ko defal mooy bàyyi na ci gannaawam loo xam ne nii mooy tax diineem ji dara du ci sikk dara du ko mën a yàq fa sharhuhu nga xam ne yoonam wi na saxa folli na sharha xayrihi yoonu kudul moom min xayri xaq sin ci lu ab safaan xaa idan mbir muy aji womate li xayrihi jëm ci yiwam wa yonent bi laata muy dem bàyyi na fi alquran ak sunna muy yaar yoo xam ne day tax diineem ji moom dara du ko laal ba keram yu soob yàlla te yoon wi fi indi itam moo fi nekk di aw yoon weneen yoon du ko folli maanaam yoonam wi folli na wépp yoon wu ko jiitu woon te moom nag moo fi sax ba faaw amul dara luy ñëw di ko folli wa min hajaa'i bi shafi bokk na ci kiimtaani aji ramooji almotama kadi kuñ tànn àll yal na doole nekk ci moom xayru salawaat ñu gën ci ay dolli teral tooxtamaa yu def na leen tànn maa salaami rabbihi ànd ak dooli wóolu boroomam fil aali ci biir ñoñ ña wa sahbi ak ay saxaabaam fil xaali ci tey wala ma aali ak ëllëg taw jiifu rabbihi jubaleg boroomam bi jaahi ci darajaam alxasimi jey aji màgg ilaa qadimihi jëm ji aji liggéeyam te mooy moom sëñ bi bi da durri ci wéerewul su durru an nazimi wadi wuñ nos yàlla jëmali ci moom sëriñ bi xifdan ak wattu wara yan akook sàmm laasama yooyu taqoo nañook tawfiqan tawfiq bi kaw nii ci ak nekkam alxalifata di wutaatu yonante bi ar rafiqa tey àndaaleem bokk na ci kiimtaan yonante bi sàmm gi ma yàlla sàmm man mii koy liggéeyal fu mu toll boole maag tawfiq ma nekk wutaatam nekk àndaaleem neen loolu lépp ci kiimtaan yonante bi la bokk wa min makaa idillah yi ni bokk na ci pexe kañu rëbbu siida yàlla na dolleef ko tardan ak dàq wala anat ak rëbbu taf yi goog dana dikk masiidan mbir muy ndolleen ixraajuhoo génneem nga ak tawxiid a tawxiid min xulóoj man ca xol yi ña nga xam ne lahum ñeel na leen shaqaawatun texee di wa faaraqoo te ñu tàqalikoog al amana kóolute te muy mucc nee bokk na ci pexey seytaane yàlla na ko yàlla doolee dàq dooli ko rëbbu bokk na ci pexeem génn gi mu génn tawxiid ci ñi nga xam ne yàlla narul ci ñoom texe maanaam ñu nar a texe di ñoom ñoom la seytaane jekku génn ci ñoom tawxiid bu ko defee ñu tàggoog mucc nag taqoog texee deeg yaraange faaw faaw laakin na xoo waaye moom nag tara daxoo dàq na ko alqaxaaru notaakoon ba tardan ak dàq laa sama xoo kook taqoo naag moom bisi ci moom inqixaarun ak notu ilaa siwaa man jëm ci ñu dul ña nga xam ne laa samoo taqoo nañu asaxaadate texe indal la sii fa buur bi nga xam ne jaada tabe na bi xarqil aadati ci xotti baax xam nga dane woon seytaane moom pexeem yi bari tax na mën a génne tawxiid ci xol yi ña nga xam ne ñoo nar a texee di mu ne waaye nag ñu yàlla ñu yàlla nar a ci ñoom texe ñoom ah du leen mënal dara yàllaa koy dàq mu jëm suuf daanu rek jëm suuf nuur jëm suuf ba du mënal ñooñee nga xam ne ñoom la yàlla nar a ci ñoom texe déedéet ñooñu moom du leen mënal dara wa min hajaibi nabi bokk na ci kiim taan yonante bi almustafa ba de bi mu tànn sàlla yàlla ndol tedd nga xale yi ci moom xayru baaxin gën ci aji des istafa juj tànn na ko musalliman mbir mi aji dooli wóolu xale yi ci moom fil aali ci ñooñ alkiraami ña di way tedd wa sax bi ak saxaabaam ya maa qaada li feeg wommat na min hu tukkee ci moom lii jëme ci man almaraama càkkuteef la bokk na ci kiim taan yonante bi isaaluhu àggaleem nga xadiimahu aji liggéeyalam jile lillahi jëm ci yàlla billahi ci kàttanu yàlla raadiyan mbir muy aji gërëm xani illahi walis bóor bi te mooy yàlla waqataxa te mu dagg baynahu digganteem wa baynamaa ak diggante lépp loo xam ne lam yarda gërëmu ko shaafiyan mbir muy aji saafara bi ci moom li marda ñeel way tawat tawati xol bokk na ci kiimtaan yonante bi àggale gi ma àggale man mii koy liggéeyal ci kàttanu yàlla mu àggale ma nag ci yàlla dox sama digganteeg lépp lu yàlla gërëmut te itam ñi amee jàngoroy xol ba mu tee leen ma nekk seen boroom ci man mi la leen di saafara bañ ma nekk seen boroom wala ci man la leen saafara bañ ma nekk seen boroom loolu lépp nee na daa bokk ci kiimtaan yonante bi mu àggale ma ci yàlla dox sama digganteeg lépp lu yàlla gërëmut defaree ci man ñu naran yàqu loolu lépp daa bokk ci kiimtaan yonante bi wa min mafasidillah yi ni bokk na ci yàqu-yàqu yi kañu rëbbu turida turida dàqeef na ko ilaa siwaa naa jëm ci kudul nun wala njarida te du rot mukk la naa jëm ci nun ixwaa uxoo bewloom nga man ña nga xam ne tara koo bàyyi nañu alquran alquran wal kullu te képp ci ñoom yoxu saa def na ko gàcceel xaalikan mbir mu ngi aji alku zam aana tey aji mar ne bokk na ci yàq-yàq iblis fexe na ba bewloo ñenn ñi ba bàyyiloo leen alxuraan te képp ku iblis bewloo ba nga won alxuraan gannaaw rek xamal ne ku nar a alku nga ku nar a am gàcce bu ëllëgee ndax fa kullu man képp koo xam ne taraka bàyyi na dikkiran alxuraan un si la joj wàcceef na ko fa xasala kon ber na nafsahu boppam maa shaqaayit ànd ak texee di ku won alxuraan gannaaw rek yaa alak sa bopp ndax dangaa mel ne ku fekk ak ñàkk a texe mu taxaw fee nga ne ko ñëwoon dem maag yow nooy ànd duma la wàcc kitaabu rabbina téereb sunu borom bi xuwa moom al kitaabu mooy téere ba wa fii te ci biiram sax xaala la waxee ne daalika lii al kitaabu mooy dëgg-dëggi téere ba daalika day firi loolee waaye dañuy fekk lu jege ñu junjëkul sori ndax jublu ci ak màggal ndax dalikal kitaabu jubluwul dalika loolee dalika ak jegeel la fañ ko indi ci dalika kitaabu laaray ba fii wa min madarrati laayini bokk na ci lori gañu rabbu aydan ba tey axzaahu yal na ko gàcceel baaxin aju des yu diimu kook dana saxal lii ñel ma faydan ak bëbb wala baawaanuk may saddul muridina dëdduloo taalibe yi xani taalumi walis xamlu li wacc rabbi naa ngir jëmi sunu boroom alxalimi kay aji xam al alami ka gën a xam ne bokk na ci lori saytaane dëdduloo gi muy tëdduloo taalibe yi jàng ba xàmmee seeni farata ak seeni sunna ndax lii farata ci xam-xam mooy fexe ba loo toll ci sa dund rek daal di koy xam loolu nag nee na saytaane daa fexe fexe ba xañ ko ñenn ci taalibe yi loolu bokk na ci loram ndax xam-xamu baatin moom lu bari yàlla dana jekki-jekki sol ko kenn waaye xam-xamu zahir bii nag moom muy fexe ba xàmmee farataak sunnaak attey zahir yi moom li ci ëpp rek kooka moo koy sabablul boppam ba yàlla xamal ko ko waaye li ci ëpp du ñu jekki-jekki xamal ko kenn moo tax mu teg ci yaari way yi mu ci teg ndax fa kullu man képp koo xam ne bayaxa sànk na xel man xam bi sunna nen ci ay sunna wa bi faraida ak ci ay farata weer te jiite mu yaakaar almina na xéewal ya fa huwa moom dub dalaali boroomuk réer la wal idlaali akuk réeral te jasaa uhu payam intiqaamu dil jalaali mooy fayantoog boroom màgg ga ndax nee na képp ku sàggan ci xam farata ak sunna ba noppi di yaakaar nag bu ëllëgee yàlla defal ko xéewal kooku de xamal ne dafa sànk ba noppi di sànke mooy dafa réer tey réeral te bu ëllëgee la ko yàlla faye mooy fayantoogu méttee méttee wa min mawaaxi bi rasulillahi bokk na ci may yonante yàlla bi alayhi yàlla na doolee nekk ci moom taslimal xali yaari musali aji kawe ji al ilahi kay bóor an laa yasaalam bañ a dañ zikruhu alquranam ji mu rattalan di lu ñu jàng yu raf yi ba ci ak yëkkateem man lam yu rattil koo xam ne jàngu ko xotti la kon ba ma xeef ko ne bokk na ci may yonante bi may gi ko yàlla may alxuraanam ji faaw rek am ñu koy jàng ak a topp na mu ware ba keram muy soob yàlla mu yëkkati ko képp koo xam nanguwoo ko jàng nanguwoo ko topp rek xamal ne dañ lay bëmax nga jëm ci safaan ba muy sawara waaye nag ba kere yàlla di yëkkati alxuraan te loolu bokk na ci màndarga bis penc ba kere booba rek faaw yàlla am ñenn jaam ñum taw fi xale ñu koy jàng ko jëfe nam bëggee wa min xajaib ibni abdillahi bokk na ci kiimtaani doomi abdullahi ja salla yàlla na dool tedd nga xale ci moom bi salaamillahi ànd ak dooli wóolu yàlla baax na aji des arda akook leeral na ardaxoo suufam si bil awliya ci ay waliyu ilal xiyaamati ba bis penc wa kullun te kenn ku ci ne waliya méngoo na sunnataxoo sunnaam wasaana xaatem ñongal sunna sa an bidaa in walis ay bidaa bokk na ca tabshiruhu bégalam nga xadimahu man mi aji liggéeyalam bi fasdaxi ci fasdax bi maa tu umar ne yàlla ci mbaaxam ak ngëneelam du bàyyi suufam si muy lëndëm ci kéefara ki mooy déedéet faaw rek mu indi ay wàllu yoo xam ne ngay wàcc yoonante yi leeral suuf si ci gëm ak topp ba bis penc yàlla mi dogal loolu ci mbaaxam ak ngëneelam yàlla na dolli teraanga yonanteem bii di muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonanteem bii nag di muhammad bokk na ci kiimtaanam bégal gamu mu bégal ci la ko yàlla waxoon ne ko fasda bi ma tu umar rafa tale naa la lama sama boroom joxan te mooy fasda bi ma tu umar wa axrid anil mushrikin yonante bi suñu boroom dana ko woon li ma la yónni leeral ko ba ñëpp dégg ko te bul faale ñi weddee ka diingat sëñ bi nag nee na loolee bokk na ci kiimtaan yonante bi daa wëlbatiku rafaatale ma ko te moom nii la ko ko waxee moom la leeral ci amaraxoo digal na ko yonante bi digal na man mi koy liggéeyal salla yàlla dool tedd nga allahu yàlla xaalihi ci moom fit aali ci ñooñ wa sax bi ak saxaaba ya wa man ak képp koo xam ne waalaahu méngoonte naag moom bi an yuxallima ci mu xamal yàlla almuridina taalibe wa man ak nga xam ne yaqbal dana nangu minhu ci moom an nusxa laabire ga min ahli samani ci ñooñ jamono fas nax bi maatu umar nee na bu dee ci wàlla moom mooy yonente bi dane ko yàlla teg na la ci kaw suuf xamal la li nga xam ne moo nekk ci xol yi jaamam ñi bëgg nag nga wamat jaamam ñi jëme leen ci moom kon taalibe yi ak képp ku bëgg koo laabire na nga ko laabire xamal ko na muy def ba maneeg boroomam am gërëmal boroomam bu ëllëgee loolu yonente bee ko ko rafaatale fekk nag ci cosaan yonente bee ko moomoon ca fas tax bi maatu umar wa annahu ak naka moom aw salahu àggale na ko li rabbi jëm ci boroomam xan taxliyatin ci gannaaw ak rekki ci lépp lu gënut mu bashiran mbir mi aji bégal ko bi taxliyatin ci takkaayale bépp nga neel ne gannaaw bu ma yonant bi tàggaleeg lépp lu may tee maneeg saa boroom takkaayale ma bépp ngëneel bu may taxa maneeg saa boroom àggale ma ci sama boroom ba ma sës ci rëkk lama rafaatale nag fasda bi maatu umar fasda bi maatu umar wa ahrid xanil mushrikin mooy waxal bu wér ne maa la yónni te bul faale yéefar yi mu ne ma itam nag loolu yonante bi bégal na ma rafaatale ma ko fasda bi maatu umar nee na bu dee ci wàlla moom mooy yonante bi dane ko yàlla teg na la ci kaw suuf xamal la li nga xam ne moo nekk ci xol yi jaamam ñi bëgg nag nga wamat jaamam ñi jëme leen ci moom kon taalibe yi ak képp ku bëgg koo laabire na nga ko laabire xamal ko na muy def ba maneeg boroomam am gërëmal boroomam bu ëllëgee loolu yonente bee ko ko rafaatale fekk nag ci cosaan yonente bee ko moomoon ca fas tax bi maatu umar xadintahaa jeex na mu nawiru sudóori mu nawiru sudóor aji leeral dënn ya wala aji leeral xol ya la dal manasili fa wàccukaay ya waxi ndër dóori ak fa kër ya nee na téere bi ma tudde woon téere buy leeral xol yi ci fu ne moo xam ca kër ya la moo xam ca teeru ya la ne téere bi ma tudde woon noonu foofu la yam na dama xoo way na ko alxadiimu liggéeykatu yonante bi xaama dak sasin ci atum dak sas mooy mille trois cent vingt-quatre bax dal xanaa ci gannaaw coono ba min jay sasin li tàmbalee jay sas li jak sasin ba ci jak sas gannaaw ba ma sonnee lool ngir yàlla la dale ci mille trois cent treize mooy ak demam ci géej gi ndax ko juróom-ñett ci weeru safara ci jay sas la demoon ci géej gi la ca dale nag nee na ba ci atum jak sas muy mille trois cent vingt-trois nee na sonn naa fi lool ngir yàlla waaye nag yàlla faj na saa aajo at ma ca topp nag ci jag sas muy dag sas ci laa way téere bii di mun a wiru sudóor xaamida rabbin mbir mu ngi aji sant ab buur moom sëriñ bi laa yesaal bopp du dañ samadan di kuñ jublu ci aajo musalliyan te aji julli alal bashir ci aji bégle ja ahmada te mooy ahmad wal ali ak ñooñ wal ashaabi ak sahaaba ya xisbillahi ña di kuréelu bi yàlla ma shukri man ànd ak sant ka nga xam ne aw salahu àggale na ko lillahi jëm ci yàlla neen téere bi daal 1324 laa ko taalif di ci sant yàlla di ci julli ci yonante bi di sant baax itam yonante bi ci àggale gi ma àggale ci yàlla yal na ko yàlla dolli salaatu ak salaamu mook ay mbokkam ak i saxaabaam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdu lillahi rabbil aalamiin foofu la Munawwiru Sudóor yem li ci topp nag dañu ko yàgg mool di ko susale ci Munawwiru Sudóor ñu koy tuddee jawaabu mahmoud sëriñ pakala bu jàllee it daañ ci faral di sësale lu sëñ bi dénkoon sëñ Masamba ak sëñ Modou Moustapha ak sëriñ Muhammadul Fadil kon jawaab Mahmoud mi ngi tàmbalee ci bismillahi rrahmani rrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman aw naka dana nu sàkku sa ndimbal yaa mu'inu yow ki aji dimbalee wa bika tej yow rek nastaayinu lani sàkku ndimbal yàlla yow rek am ndimbal te ci yow rek lani sàkku ndimbal duunaka na nga jàpp yaa mahmudu yow mahmud maa loo xam ne nii insha ndem soob na aljalilu aji màgg ji yashfi dana saafara muridan aj na mu yàlla